Soraya del may sa tante yi ak sa bakki di toog Kumba Gawlo wee wee wee bul wane gum clip bi de dama koy dama koy suspense dandaw dandaw <laughs> bienvenue les autres là-bas voilà pour vous <laughs> bonjour Mamoul si yo si ara si yo le beraka dako mën naa ko play back de ko play back en fait ah bah oui si yo si ara la Coupe Kaolack qui s'installe calmement non mais la chanson augmente si, si tu voilà augmente augmente nga yokk et puis nii laa leen kanam ngeen di doog a découvrir vidéo clip quelques minutes ñu découvrir euh, en exclusivité ci euh, télévision Futur Média clip bi euh, parce que mooy deuxième titre bu album bu def lancement wu album Terroir après Buña moom la ñu yeewoo tey ci suba moom la ñu yeewoo fan yëpp ci télévision Futur Média en attendant baptême de feu bi le 19 janvier samedi prochain au Grand Théâtre merci d'être là merci Pape Cheikh tout le plaisir est pour moi. <laughs> merci man maa leen gën a kontaan ci tew fii man tamit am naa mbégte gu rëy teew fii tey. voilà ci suba si. Eh. yaa ngi jóge déjà Ziguinchor barki démb yaa ngi woon stade Aline Sitoé Diatta. Eh. démb tu as passé toute la nuit au Grand Théâtre. maa ngi woon ci buntu bi di déglu répétition <laughs> dégg naa la fa. voilà tey damaa daw <laughs> dégg naa la fa. et là nga yeewaat fajar encore ñëw uniquement. Euh, pour won euh, vidéo bu bees bi euh, sénégalais yi euh, muy loo xam ni ñu ngi koy xaar ba ba tey et c'est un c'est un plaisir Exidex e exactement un ah. plaisir mais une fierté surtout d'avoir une grande dame aujourd'hui qui parle aux Sénégalais dans toute sa diversité parce que Sénégal c'est vrai que ne du wolof rek. Mhm. mais bu ñu amee tey ambassadrice bu tollu nii. Mhm. boo xamante ne adduna bi dañ koy xëccoo mu ñëw jël lu ñu moom way ko tey képp koo xamante ne sénégalais nga am na benn fibre bu muy laal ci yow te loolu defe naa ne mënul lu rek di ko delloo njukkal di ko wax na ñun lii rek la ñu bëgg dañu bëgg des daam comme vous yoo xamante ne ñi xàll yoon bi te incha allah samedi kumba di nga gis ne baat na njaag te njaag day <laughs> <laughs> sama mbokkum géwël la ñoo bokk Tiwaawan waxul waxul géer <laughs> ñoo bokk di tontu ci loolu bien merci d'avoir accompagné Coumba Gawlo ce matin merci à toi Pape Cheikh maa ngi leen di nuyu nuyu ñuy euh, toog ci plateau bi ak mbokk téléspectateurs yi mm. comme ni nga ko waxee c'est toujours une fierté d'accompagner ki nga xamante ne moo di Coumba Gawlo comme on l'a di elle reste une diva mm. donc tey je pense que dinañ waxtaane lu bare ginnaaw woy bi waaye dinañ waxtaane ci lugëm bi bees bijou qu'on mm. voit un peu tribal africain maanaam Niger lu nekk danga koy gis ci li nga hmm. xamante ne moom moo di lu kii mu xewal fan yi donc ci kanam lay doon bàyyi c'est ce que c'est ce que mais yeah. comment Coumba Gawlo a fait pour à chaque fois euh, euh, album yu muy génne ça colle ça colle daal ak le look <laughs> ah bi ngay imité bu baax ah. te nii la de bi ñu defee nga bëgg a jël place Kouthia yow. <laughs> non non non nangu waa maa fi nekkal Kouthia dama nangu nga détrôné ko. quand on a fait l'émission yow pourquoi tu lui as pas posé ma question. question ta question pourquoi à chaque fois depuis ñu judd xam Coumba Gawlo. l'album qui sort. ça colle avec son look. <laughs> complètement wallaay. elle visite elle visite mënatuma ko def fu ma génn par personnel la rek ba pare euh, comme yow. ex yaa ngi wax dama visité euh, Sénégal ci album bi je pense que si look bi dafa visité Afrique yëpp. Mm-hmm. parce que bracelet boo dee xool Mali la jógee wax bi. Mm-hmm. waa Afrique ñun ñëpp a ko bokk. très aussi c'est africain et puis mu boole ko ak jean si suuf. xaw ma vous avez pas la chance de voir ça. donc <laughs> Afrique ak euh, ouverture bi nga xamante ne moom la am loolu yëpp la boole donc je pense que dinañ waxtaan ak moom ci look bi xool lan moo tax. Mm-hmm. mu jël look yooyu boole ko que ce si clip yi. ci bi ak aussi même buy ñëw ci plateau yi esa bi pare. Euh, pour défendre suñu suñu culture. voilà donc on va permettre quand même pour gagner du temps à Sophie euh, euh, mu wax ñu li muy toggal Kumba Gawlo et puis euh, mu pare rapidement nga ànd ci ak bocage ñu teg ko Kumba di lekk di ñu waxtaanal parce qu'on a très envie quand même d'en savoir plus man du ma doyal ci mom exadex ma ma regarde genre wax nga ak moom ba pare a am nga deux <laughs> <laughs> la ligne ça me coûte ça me cher c'est difficile. ah, ah euh, ou. Euh? non dinaa mais j'ai une alimentation exigeante et rigoureuse je bois beaucoup d'eau ah. déjà ndox bu tàng rek laay naan déjà voilà beaucoup de sport. et puis gras du ma lekk lu bëri parce que man du may am appétit. Mhm. et puis sama biir dem na ba tàmm na léegi xiif quoi. <laughs> voilà. Ah, le matin à jeun. <laughs> et toute la journée moi je que de l'eau chaude. c'est conseillé. c'est c'est très conseillé boo demee aujourd'hui ci yenn. même Chine si tu manges automatiquement il te recommande de l'eau chaude nga naan ko et tout ça. donc dafay exactement. voilà léegi on démarre bu ngeen bëggee ma puluf ko. Eh. ok d'accord <laughs> d'accord léegi kon ñu def ko aiguille yu monde. ñu commencé ak Méri Bey. parce que Méri ce matin euh, euh, euh, ce qui a attiré sa attention ci Coumba Gawlo mooy présence am ci digital bi Facebook Twitter. chaîne YouTube am Coumba Gawlo sur WhatsApp Coumba Gawlo qui fait des posts. et il nous arrive de de de de de suivre ay sorties Coumba Gawlo biir këram. Mhm. au resto avec ses enfants et tout ça. Mhm. ça t'a marqué oui effectivement Pape Cheikh déjà maa ngi nuyu l'artiste parce que man l'artiste laa ko woowee mm. euh, je me rappelle que Coumba Gawlo je l'ai découvert bi ma gënee nekk xale dans le à travers euh, way bi euh, seytaane mm. boobu ba léegi en fait léegi mu feeñ ñoo bokkoon ñoo bokkoon classe mooy <laughs> waxal rek seytaane mi ngi bëgg a feeñ mi ngi bëgg a feeñ boobu xale laa woon c'est-à-dire way bi non si j'avais un peu peur mais foofu laa découvrir musicalité en fait foofu laa commencé déglu parce que il y a une certaine différence. voilà mais bu ñu ñëwee ci euh, euh, technologie bi nga xamante ne man moo ma moo ma intéressé en fait on sent qu'il y a une équipe. on sent que c'est orchestré on sent que c'est c'est contrôlé mm-hmm. euh, si li ma jot a suivre sa carrière <laughs> je je pense que même vos sorties euh, say sorties médiatiques euh, émissions plateau télé tout est orchestré et mm. tout est maîtrisé c'est-à-dire début bi ba fin bi ba ci wax bi on le sent dans la maîtrise de la parole mm. on le sent dans la maîtrise euh, des postes. Ah. on le on le sent partout donc j'aimerais savoir foofu ñun animateurs yi sax lañ koy jógee c'est-à-dire ku ci am interview ak Coumba Gawlo Seck. on le sent on le sent on te cadre pour que nga dans le cadre. de li voilà dans mm. et pas autre chose. Mm. c'est-à-dire même si elle doit te remettre à ta place elle le fera mais très gentiment. Mm. mais loolu bu ci dugg du sa et c'est quelque chose boo xamante ne me plaît énormément chez vous. foofu et euh, euh, pour juste en revenir euh, au digital bëggoon nañ xam fan la la inspiration boobu dikkee parce qu'on sait que bépp artiste bu bëgg a évoluer actuellement il faut que nga suivre mouvance technologie mouvance réseaux sociaux mm. donc bëgg nañ xam déjà Euh, idée bi naka la naka la juddoo équipe bi naka nga ko former est-ce que c'est une personne voilà community benn community la wala c'est deux mm. wala c'est trois personnes wala ñoom ñoo lay joxe est-ce que c'est des jeunes mm-hmm. est-ce que c'est euh, des demi-pas comme euh, genre bi est-ce que c'est un melting pot et au niveau des choix des musiques mm. des titres ak lépp luy accompagner est-ce que mm-hmm. c'est un brainstorming que vous mm-hmm. faisiez wala yow yaay décider de tout mm. Alors, question pertinente, Mary. Merci avant tout pour cette invitation, Pape Cher. Merci à ton équipe. Mm. Hein, tu as de la chance, tu es entouré que de femmes et que ah de ouais, hein? femmes. Ah, hein, tu as de la chance, ah, là. Ah, vraiment, il y <laughs> ah, avait, avec, avec X-Siders, vous avez de la chance. Ah, bah oui. Au moins, si on reconnaît la valeur des femmes. Voilà, voilà. je salue ça. <laughs> Dès le matin, donc, vraiment, merci. Man contana, man tamit, nyoti, plateau bi. Et je vous remercie beaucoup. Et voilà, je, je partage un immense plaisir à être ici. La la question est très pertinente et pour tontu ci defe naa ne li ma ci mën a wax rek mooy c'est une équipe hein équipe moo fi mhm. nekk c'est des c'est ce sont des jeunes mhm. très dynamiques mhm. vraiment très euh, très passionnés très engagés ñooy liggéey euh, au niveau de tout ce qui concerne les réseaux sociaux la communication et tout ça. Mm-hmm. avec euh, maintenant benn benn benn pas comme tu dis. bu mm-hmm. <laughs> nekk à la tête. Hein, bu nekk à la tête pour maintenant euh, définir un peu la stratégie et, et puis essayer de traduire en des actes concrets si je peux le mm-hmm. dire comme ça ou des idées concrètes. voilà des actes concrets mais idées. parce qu'on fait un brainstorming dañuy toog waxtaan suñu biir par rapport ak ñu bëgg a jël fii la ñu jëm ci stratégie bi communication bi nii lañ ko bëggee et une fois que c'est défini et que c'est retenu selon la ligne de conduite qui est définie le staff maintenant voilà le go est donné et le staff maintenant prend cette ligne de conduite là euh, du point de vue de la communication pour liggéey ci quoi. Mhm. maintenant il est clair que termes d'image man dama nekk koo xam ne je tiens beaucoup à mon mhm. image. voilà photo buy jaar vidéo buy jaar lenn luy jaar. Euh, bañ ah naa ko de. donc loolu bi ñu ma ko nettalee ni ma ni ma ni ñu la tuddee fii est ce que ko ma ne ah yëgu ma ko ñun ma madame validé. la preuve la preuve depuis semaine dernière lañu lañu prévoir. Euh, wane clip bi mais chaque veille émission. yeewu leen on ah, Kumba validé gu <laughs> fatigant de tout contrôler comme ça est-ce que parfois t'as pas envie de ne semaine bi damay def lu ma neex je je me lâche je fais ce que je veux parce que c'est c'est fatigant de tout contrôler tout le temps tout le temps. non mais c'est une image aussi. Mm -hmm. parce que image c'est quelque chose d'extrêmement important. Mm -hmm. ça reste, voilà et c'est quelque chose qui reste quand ça part ça part. Mm -hmm. donc mënatoo ci dellu si gannaaw mën nga am yow mën a rattraper. Mm-hmm. mais image un concert raté tu peux. mais léegi à capture de <laughs> c'est vrai. dire ben je vais donner rendez-vous au même endroit. Ouais, et je ouais. me battrai pour avoir plus de monde demain. C'est vrai. Bon, voilà, voilà, mais <laughs> une vidéo, une photo, quelque chose comme ça, c'est voilà. Et surtout que léegi depuis capture d'écran xewee capture d'écran ak capture. voilà on veut tout mais mais loolu une force bi. voilà mais quand même j'ai j'ai l'équipe derrière. il y a mhm. vraiment l'équipe qui travaille beaucoup. te mhm. man am naa vraiment chance bu extraordinaire c'est que dama am mhm. équipe bu passionnée quoi. ñu ay tayel quoi voilà très ah. professionnel très passionné Pape Cheikh disait tout à l'heure hier maa ngi terminé deux heures du matin tey je suis là je me suis couché à 3 heures du matin. Mm, mm, Je me suis mm. levée ce matin à 5h45. Voilà, ah, c'était pas facile, mais euh, c'est ce qu'il faut faire. parce que amul amul beneen choix quoi. voilà donc defe naa ni loolu aussi exigence su métier bi la. te tey pour euh, image dafa nekk loo xam ne daf lay topp. voilà moo tax euh, toujours dañ may laaj suma xalaat maintenant parfois mën na aussi fekk si leen ñoom ci li ñu gis voilà parce que foog nga mais on sent que c'est ça en fait. a la cohérence en fait. Voilà, avec donc euh, Aïssatou Paye Fall qui parle de patrimoine depuis ce matin. Non, mais oui. ce qui est extraordinaire, j'allais parler de patrimoine mondial du Sénégal. Ouais, ouais. Et là, je vous ai devant moi, mmh. donc je laisse ça de côté mmh. et on va parler de vos patrimoines. Ah ben, vous êtes un patrimoine. la chanson sénégalaise. Merci. Je vais, je vais, dama koy siif dagg la mm-hmm. une seconde pour confirmer ce qu'elle vient de dire. Mm-hmm. Faites le tour de l'Afrique. Ouais. Vous allez voir qu'il y a aucune dame qui chante qui a autant qui, qui est au devant de la scène pendant autant d'années ba am constance boobu oh, c'est Coumba Gawlo il n'y en a pas deux Afrique ça c'est une fierté mm. faites le tour mm. de deux vous allez voir qu'aussi que le Sénégal mooy dirige musique Afrique jëlal ñi fi nekk di yëpp de qui ont plus de quarante ans ou quarante cinq ans mm-hmm. nga dem yeneen dëkk ils sont à la retraite tu les entends plus mhm. donc le Sénégal on est encore leader c'est grâce à Coumba Gawlo donc pour dire que ne ñii moom mi patrimoine la parce que mooy moo jiitu waaw macha allah tu as raison mais tu m'avais demandé deux secondes. deux secondes <laughs> ah, voilà après tu me tires une oreille donc non seulement euh, j'allais parler de patrimoine j'allais parler de terroir et là vous représentez tout en même temps donc euh, moi je me rappelle une chose c'est mon premier reportage culture je l'ai fait avec vous hmm. c'était avec euh, Diego génne woon ngeen benn truc et c'était dans une si benn euh, boîte la woon bu nekk fan ok mais j'oublie le nom maa ngi ko doon laaj cinq euh, cinq exiles et donc voilà euh, j'avais déjà apprécié cet album euh, bien avant ça Jolof Jolof mm-hmm. juste je pense je pense c'était là-bas mm-hmm. Mm-hmm. euh, donc voilà je vous retrouve encore des années des années machallah yàlla nañ ko yàgg di fekkee puis voilà euh, donc moi cette constance Euh, Kumba naka la amee je veux dire euh, constancer sa engagement engagement par rapport aux femmes euh, et ça je le salue parce que je suis quelqu'un aussi de très engagé même si je ne m'active pas trop moi je loue cette façon que vous avez de dire voilà je suis femme je m'assume j'assume ma féminité j'assume ce que je suis et j'assume ce que je représente et voilà vous êtes là pour dire aux femmes allez we can run the world on peut y croire on veut y mhm. croire et mhm. jigéen bu nekk am nga sa waax booy bay ci li ngay liggéey ak li nga xamante ne yaa ngi koy liggéey ba pare di ko wan jigéen ñi pour ñu jël seen yoon foofu donc man dama bëggoon xam constance boobu si engagement ci euh, li nga gëm ci xale ci jigéen constance si sa liggéey euh, c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est la force voilà c'est du combat la Mhm. la passion moi je pense que lépp looy def il faut nga am ci passion. Mhm. moi je suis quelqu'un de passionné extrêmement passionné. Mhm. et d'ailleurs c'est très difficile par contre quand on est passionné parce qu'on souffre on souffre beaucoup beaucoup beaucoup on souffre euh, souvent de d'incompréhension d'être incompris on souffre de voilà on souffre <laughs> voilà on souffre parce que voilà li nga li nga li nga bëgg euh, du lii réellement nga bëgg tu veux plus euh, pourtant nit kii mi ngi joxe li mu mën. dem ba sës voilà dem na dem mais bon pour yow des na quoi. voilà et tu as cette euh, ce défaut aussi c'est aussi un défaut de pousser parfois un peu trop alors que tout le monde n'est pas comme toi. tout le monde n'a pas la même force mm-hmm. mm-hmm. tout le monde n'est pas donc. mais bon c'est la passion voilà man li ma li ma gëm rek mooy looy def def ci passion. Mm-hmm. certes il faut nga nga am nga def la part des choses il faut être mesuré mais il faut nga def ko ak passion il faut il faut mu seey sa xol quoi mhm. voilà parce que booy def dara bu seeyee sa xol euh, automatiquement di nga da nga koy def ak euh, da koy def ak jom danga koy def ak fulla da nga koy def ak mhm. exigence mhm. et moi pour moi le le métier bi nga xam ni moom laay def pour man c'est un rêve voilà rêve la euh, métier la ça doit faire rêver et puis exigence la quoi man noonu man ko gisee la c'est bien d'être passionné Parce que chaque fois, on donne le meilleur de soi-même. <coughs> Ouais, et ouais. on arrive à, à, à faire passer ce link-là aux Et je trouve que c'est formidable. Voilà. C'est comme disait l'autre. Mhm. Mado, par contre, euh, yàgg bi ju daanaka yéen a bokk. waaw ñu ngi ko oui voilà je ah. voulais parler du loup parce que sànq kii tamit interpellé na ko n'est-ce pas Bijou. Mhm. Euh, comme ñu par mhm. rapport ak vidéo boo munti def saa rime ak li nga xamante ne moom moo donc est-ce que c'est une équipe ah, toujours qui est là wala yow ya choisir sa ay choix ne par rapport à telle chanson c'est cette tenue que je veux mettre wala y a toujours une équipe qui choisit telle tenue on doit mettre par rapport à tel album mm, mm. non la base c'est toujours moi voilà parce qu'à chaque fois man déjà bu ma nekkee studio di bind way mhm. euh, j'ai déjà l'image de ce que je veux faire de cette chanson voilà su may bind benn way bu may way way bi di muy tourner sama bopp déjà mhm. xam naa euh, euh, dans la vidéo vidéo li ma bëgg a def. am naa imagination bi mhm. donc ça m'aide beaucoup d'ailleurs ci sama ay composition mhm. xam naa aussi les couleurs les tenues le mhm. stylisme ce que je veux porter ak ban ban style laa bëgg a joxe. maintenant une femme parce que c'est important aussi. parce que artiste bi mo mooy génne li nga xam ne mooy sa créativité mooy xolam mooy xalaatam mooy gis-gisam. maintenant nag il y a toute une équipe derrière. Euh, ci stylisme bi euh, ci. Euh, Euh, visuel yi graphie yi couleur yi euh, ci euh, chorégraphie yi mhm. ci lépp loo xamante ni nii maa ngi koy liggéey y a vraiment des une équipe vraiment professionnelle mhm. l'équipe peut parfois changer okay. parce que xëy na direction bi la ñu bëgg jël cette ouais. fois mm -hmm. ma ni tiens qui peut me faire ça il faut trouver quelqu'un qui peut le faire mhm. bu ñëwee ñu xool et puis ñu gis euh, direction bi on voit que c'est cette personne qu'il faut et puis on travaille ensemble mais est-ce mise en série wala voilà une ouverture avec les jeunes stylistes qui sont là au Sénégal wala da ngay jël ay stylistes yoo xamante ne bitim réew nañu ah non non jeunes stylistes yu yu bëri laay liggéeyal par mhm. exemple clip bu ñaa euh, ki nga xam ne moom laa ci liggéeyal c'est Tima mhm. Tima ma styliste depuis 12 ah, ans voilà avec qui je travaille liggéey nañu pratiquement deux mois avant album bi di génn ci stylisme bi mu ñëw ñu essayer xool couleur code couleur yi mm-hmm. euh, ban esprit la parce que fallait que ça soit terroir ça fallait mm-hmm. couleur or couleur terre c'est le sable c'est le bois mm-hmm. euh, voilà c'est le soleil voilà donc fallait que ça soit marron orange et or pour refléter l'Afrique euh, par rapport à ça y avait donc amoon nañu benn benn direction quoi voilà boo xam ne moom la ñu bëggoon joxe rapport ak l'image et tout ça vraiment mu liggéey ci et puis beneen album bi aussi bu euh, clip bu mujj bi j'ai mhm. travaillé avec d'autres stylistes hein, voilà je travaille mais je dessine toujours les modèles ah. voilà ça on savait pas voilà. Ah oui, je ça dessine, on savait pas voilà je dessine les modèles maay dessiner modèles yi joxe sama idée ah. donc après ñoom ñu xool corriger et puis maintenant on travaille ensemble sur les couleurs parce que styliste am na couleur bu mu gën a xam boo xam ne man xamuma ko voilà ma ne ko bon est-ce que telle couleur mën na aller avec wala matière bi léeg bon man mën naa choisir aussi juum ci choix bi ñoom ñu aiguillonné ma mais vraiment c'est une belle équipe et après maintenant quand chance extraordinaire nekk ñu mel ni galongal nga xam ne c'est de vrais génies machallah ah, ensemble on discute on échange vraiment c'est un vrai travail d'équipe voilà et au niveau du bureau aussi tout le monde s'en mêle ah Mokhtar s'en mêle en disant ah de moom tey rafetul moom <laughs> voilà ah vraiment c'est une c'est une c'est une belle équipe voilà c'est une très très belle équipe avec qui je travaille des fois aussi mën nañu solliciter des gens comme Mike Silla mm. comme on l'a fait sur Femme Objet parce que j'avais envie de montrer voilà l'image c'est dans la ah, guerrière donc du coup j'ai appelé Mike on a dessiné des modèles et puis mm. voilà donc c'est magnifique ah, mais mais tey par exemple tey suba bi ngay ñëw solo bi naka la demee coiffure bi dafa am benn styliste bu la defaraloon kan mooy coiffe kan moo la coiffe actuellement mm-hmm. ku choisir bracelet yi collier bi comment ça s'est passé le look d'aujourd'hui alors le look d'aujourd'hui terroir en fait. voilà, voilà. Euh, au nouveau clip mhm. Mhm. donc le nouveau clip comme dans le nouveau clip j'ai des nouvelles tresses comme ça. donc il faut qu'il y ait une synergie une continuité. ce mhm. qu'on voit dans la vidéo il faut que ça soit euh, ce qui continue par rapport à, l'image par rapport au visuel par rapport à tout. voilà donc c'est ça que parce qu'il faut que les gens ce qu'ils voient en vidéo que cela puisse aussi euh, sur le plateau tu peux même reporter les mêmes tenues que tu as clip sur scène parce que c'est pour faire un rappel en quelque sorte donc loolu la ñu bëggoon def aussi et comme euh, sur le nouveau clip euh, j'ai cette tresse là cette coupe là donc j'ai voulu revenir un peu avec ça voilà une partie des des des des images il y a ça et je suis venue avec ma team il y Adama ma maquilleuse qui est venue on a voulu faire quelque chose de terroir il y a Diary mhm. la coiffeuse et voilà pour le stylisme les accessoires c'est Maretou mon assistante qui va chercher à gauche à droite styliste, il y a Elzo euh, avec qui on a fait le, le des trucs comme ça. Voilà, c'est ça l'idée. Mais beaucoup de dans son discours, tu sens qu'elle est artiste souple, ah, ouais. curieuse, ah, oui. mais, euh, mais, mais, que euh, peut-être que nous ne pas Parce que l'immédiat, c'est très technique. Ouais. Alors qu'un artiste, d'habitude, c'est euh, le, le, micro, le ah, voilà, oui, et ça. Ça, au fait. Mais elle est oud, elle est partout. Voilà. C'est à quel point. Qui la Exactement. Lolo à quel à quel point vraiment ah, dafa am ay message yu muy wone mm-hmm. ne d'accord way baax na bind baax na mais on doit aller au-delà mm-hmm. parce que il ne faut pas oublier que l'Afrique c'est une société patriarcale mm-hmm. donc pour avoir une dame bu nekk au-devant de la scène ça ça c'est c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup de travail pour que les gens acceptent déjà un de deux et les messages parce que message yu muy véhiculé boo koy xool c'est la femme c'est l'Afrique c'est entre c'est l'entrepreneuriat etc etc et ça d'habitude Voilà, c'était des combats que l'homme le garçon ou l'homme góor. Mhm. moo ko doon porté. léegi bu ko porté ça veut dire que ne bi muy yàgg way parité boobu Sénégal yi sax jógaguñu woon. boobu mhm. ko commencé woon. voilà avant de découvrir coulisses su euh, tournage clip bi Bijou Ndiaye est en train de préparer d'ailleurs une grande émission spéciale mhm. euh, backstage ak des images yoo xam ne ni euh, dinañ ko recevoir jëm ci tournage ñaari clip yëpp moo xam Buña moo xam Sio bi ngeen di waaj a découvrir il faut ngeen patienter. xam Sio yow il faut sax nit ñi patienter. <laughs> cest aussi il a envie am naa envie seetaan ko parce que même yow seetaanoo ko voilà yéen li ngeen di toogee di xaar man tamit noonu laay toogee di xaar mais comme je dis tout le temps avec mon ami de là-bas la télé c'est que de la télé attendons patientez voilà donc on va vous montrer dans quelques minutes quelques photos en attendant bisous euh, puisque bientôt c'est le grand retour de Backstage émission boobu nga xam ne ni moo leen di permettre ngeen am accès mm-hmm. illimité euh, de nos stars donc on va regrouper image u Bougna ak image tournage u clip CEO comme ça ñu defal leen ko un rendez-vous spécial euh, en attendant Merry euh, ñu bàyyi la nga euh, joxewaat sa grain de sel. waaw une juste une question boo xamante ne ça vient de de me venir mm. euh, côté digitalisation bi est-ce que vous avez pensé à ça c'est-à-dire euh, li di.

modèle de distribution sur place. Mhm. Mhm. tout ce qui est voilà tout ce qui mhm. est en partenariat avec des des des des, des opérateurs ici et des opérateurs dans la sous-région, okay. Euh, des pays dans des pays comme le Niger, comme euh, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso où les partenaires sur place euh, prennent la chanson pour mu nekk sonnerie. automatiquement quand quelqu'un on l'appelle, euh, musique d'attente bi daf et après on t'envoie un SMS dire pour euh, écouter cette chanson déjà ci sa ay way ci yeneen way donc on mm-hmm. attend ça avec euh, mm-hmm. avec cet album regardez bi nekk sama ginnaaw mooy événement bi ñëpp di préparer le janvier samedi prochain au Grand Théâtre ce sera un événement télévision Futur Média ñun ñëpp a ngi fa yéen tamit yéen a koy préparer message bi mooy euh, bu fekkee da ngeen bañ waa Kolda yi ëppale leen Dakar wala waa Ziguinchor parce que dëkk bu ci ne yaa ngi préparer sa car mm-hmm. on va en vidéo bi ñuy bëgg a seetaan dans euh, quelques minutes mais balaa ñu koy xool j'aimerais euh, défiler avec quelques photos euh, de coulisses de tournage en attendant backstage bu Bijou Sy prochainement et on commente avec Coumba Gawlo oh c'est très beau ça ça c'est un tableau ça yéen tey fu tey moom sax normalement vous qui regardez dañu waroon def comme comme comme comme Gaston Mbengue bu ngeen bëggee seetaan Coumba Gawlo wallaay kon mu jaas je te jure. Djibson Diop moom mhm. ci si euh, film bi benn am na benn film y a une dame. Euh, en fait c'est le c'est le style quoi. waay waay ah. c'est c'est c'est li portrait la tey boo koy xool nga xamante ne euh, directeur photographie bi il a beaucoup travaillé sur ça sur sur cette image. parce que image yoo xamante ne soxlawoo di aller loin. quand mhm. on regarde Coumba Gawlo qu'est-ce qu'on voit déjà ci coup bi on voit déjà ces ses cordes vocales. Ouais. Ça veut dire qu'elle a poussé au niveau du ventre. Ah. Ça veut ouais. dire que c'était pas triché. Mm -hmm. Quand c'est triché, on le sait. Mais là, on voit qu'elle a poussé du ventre. Donc, du coup, tu as du sang qui monte vers la tête. Donc, ça veut dire que c'est une photo qui est naturelle. Machallah. Elle parle. Elle parle. Elle laboratoire. Il abuse, là. Il abuse. Sérieusement, il abuse. Il abuse. Il abuse. Il est patient. vernis ouais, ouais, tu parlais du oui. Ah, ah, exactement donc euh, c'est euh, <laughs> c'est énorme ah, man li sax daf may dal euh. quand je suis devant Kumba Gawlo ma jàngoon ci ay français façon prononcé exactement <laughs> exactement oui mu ne que j'aimerais savoir ce qu'elle a porté on a l'impression que c'est un manteau en même temps on a l'impression qu'il c'est une robe à l'intérieur c'est c'est un manteau avec les, les épaulettes d'avocat. Ah. pas si vous ah. voyez aujourd'hui la robe d'avocat, voilà. Mm -hmm. c'est un peu l'idée, c'est quoi Elle plaide pour le Fouta, elle plaide pour oh. l'Afrique, quoi. pour le retour aux sources, pour euh, la profondeur, pour nous déloir Tchosaan, pour nous. Voilà, c'était ça. En tout cas, c'est magnifique. Avec oh là, la sobriété, voilà. le noir. Moi, j'aimerais bien avoir ça, tableau. Comme ça, tu prends. Oula, regarde ça. alors ah deuxième photo ah. waaw ça c'est magnifique. ça c'est ah, extraordinaire toujours le contraste rouge bi ci la savane. est-ce que les couleurs ont une signification particulière wala da ngay sol couleur yi noonu rek. non les couleurs ont une signification particulière. d'abord parce que je les aime moi j'aime beaucoup le rouge. ok <laughs> ok ok moi mais en matière de vidéo et puis booy fës booy rouge déjà ça attire. Euh, euh, c'est bien visible. au-delà de ça du point de vue mystique Rouge dafa am baatin quoi. Mm-hmm. am baatin donc dafa am de rouge de noir de blanc pour créer un manteau qui fait un peu royal la ouais. de la forêt quoi. la la créer voilà un euh, a compris photographe euh, voulait faire parce ouais. que moom laa am posture pour nga mën ko def mu génn euh, d'habitude da position lu yàgg mooy première photo bi mu dugg joogu dugal xam nga pour aujourd'hui nga mën a yéegee sa euh, je veux dire pour bomber euh, la poitrine moom da nga ma bàyyi da ngay inspiré da ngay inspiré tey donc quand tu inspires et que tu bloques tu attends maintenant euh, non là le mot de la journée non non là elle part elle part bien à l'appareil donc c'est pour avoir le truc <laughs> voilà photo ah, photo photo bi ci topp quand même euh, ma j'aimerais dafa am lu attiré sama attention euh, d'abord am na lu attiré sama attention lan moo attiré sa attention. bah la petite. la petite ok lan moo attiré sa attention c'est la petite. lan moo attiré sa attention Mary Bey. c'est aussi elle c'est la petite aussi Exidex. c'est la petite c'est le affaire bi nekk ci ginnaaw ni le truc royal euh, lan moo attiré sa attention. c'est la petite c'est la petite mais lan ci la petite moo attiré sa attention. ça oui ça. <laughs> nuroo bi mu nuroo ak dañu eh, nuroo waale bi kii est-ce que du doomu Kumba Gawlo Seck. <laughs> ressemblance bi am ak yow Dior c'est ma fille ah. waaw. voilà moom nee na mannequin la bëgg a doon moom. <laughs> voilà. <laughs> ah il est bien parti. voilà mu ne mannequin la bëgg a doon donc dafa participer aussi ci clip bi. c'est vrai elle est très jolie parce qu'elle est ah. grande elle est fine elle est noire. et puis c'est tout toi. voilà voilà. voilà man bi may xale c'est vrai que dañu nuroo nuroo bu baax quoi. voilà. est-ce que fan wala répète ça parce que xale souvent dañuy fan. waaw moom nag damaa fan moom. mais c'est ça moom damaa fan moom. voilà tellement de photos yu ñu am ci euh, tournage u euh, clip bu. Sio e qu'on va euh, découvrir. Ah, ah le regard. Ah, ça le regard, c'est le sang. Bon sang ne saurait mentir. Le sang, bon sang ne saurait mentir. Mentir. Ah voilà. Donc dans quelques minutes, Exidex, e on va euh, vidéo bi Coumba euh, qui a commencé une tournée d'ailleurs. Mm-hmm. bërki démb mu ngi woon stade Aline Sitoé Diatta Ziguinchor Coumba boulot qui a été à Kolda euh, d'abord nañu xool ce qui s'est passé à Kolda ku bëgg nga commenter ko en même temps balaa ñuy dem euh, ci li nga xam ne ni moo xewoon euh, Ziguinchor samedi dernier lii c'était à Kolda on vous montre on voilà parce que da nga commencé par def rencontre mhm. ak euh, public bi mhm. ak fans ak autorité yu dëkk bi mhm. Euh, euh, balaa ngay dem sur scène donc on va on va découvrir nos chat la je pense que dafa planter wu ci ginnaaw mais bon <laughs> on peut toujours commenter balaa ñu len koy won donc Kolda nga njëkkee bala Ziguinchor waaye Kolda la ñu njëkkee ci tourne bi balaa Ziguinchor donc au Festi Kolda avec Abdoulaye Bibi Baldé et bi ñu demee a fait quand même une cérémonie de dédicace pour dédicacer album bi c'était une manière la woon pour man vraiment rendre hommage euh, fi nga xam ni yëpp fi laa jaar gox yi ma jaar population yi ma inspiré et puis def ñoom promotion seen way bi nga xamante ni moom laa fa jëlee quoi. Mhm. voilà et puis c' très intéressant parce que way bi mën naa ne ñoom ñoo gën a mën. voilà et puis ils étaient fiers. voilà ils étaient fiers mhm. mhm. donc ñu dem fa cérémonie de dédicace vraiment Kolda yëpp répondre ma ciy profité di remercier public bi di remercier le ministre Abdoulaye Bibi Baldé voilà qui s' déplacé avec euh, toutes les populations dédicacé ko et puis il y avait aussi le ministre Abdoulaye Baldé de la Casamance aussi qui était venu donc vraiment expérience bu bu nice la woon. voilà et, et ça c'est ouais. c'est pas c'est pas loin. absolument absolument voilà ñu xool. leen ci benn saa voilà donc loolu moo xewoon euh, euh, Kolda euh, Kolda ak pont bi xam nga pont Kolda bi moom la ñu tuddee maamu Dut Sow ah régisseur bu ah euh, télévision Futur Média donc Kolda dëkk bu riche la et ñoom ci album Terroir euh, Diombadio mooy seen woy nga jógee euh, Kolda dem fi nga xamee ni mooy Ziguinchor yaayu ñoom Angélique yaayu les autorités de Ziguinchor samedi dernier la woon ci stade Aline Sitoé c'est-à-dire boo dee woy sax joolaa yi ñoom ñoo mujj jël woy bi <laughs> <laughs> effectivement Ziguinchor aussi c'était vraiment très intéressant mm. ma ci profito di féliciter di encourager sama sœur Aminata Angélique Manga parce que vraiment c'est une vraie guerrière celle-là c'est une brave dame ah, mm. mm. jigéen bu am jom la mm. jigéen bu am euh, honneur jigéen bu am de bonnes valeurs donc man je l'aime beaucoup et puis elle nous a accueillis avec toute sa délégation avec tous les jeunes de Ziguinchor vraiment Casamance jërëjëf big up respect jërëjëf seen accueil jërëjëf seen teewaay jërëjëf ni ngeen ñu taxawoo ci bi effectivement man way bi ñoom nangu nañ ko <laughs> <laughs> rokaale rokaale rokaale nangu nañ ko ci man. su <laughs> eh, eh, ma ko doon euh, par rapport ak bi muy réaliser œuvre bi chef d'œuvre bi euh, on le coaching au niveau des langues parfois c'est un peu yoo xamante ne des sons par conséquence culturelle c'est très difficile à ouais donc euh, comment ça s'est passé man foofu laa bëgg nga. oh c'était pas facile mhm. yombul woon. parce qu'il faut nga jàng là Angélique. pour revenir ah. sur Marie <laughs> Angélique voilà c'était à Ziguinchor voilà y avait beaucoup d'émotions. voilà donc ça s'est passé à Ziguinchor <laughs> samedi dernier stade Aline Sitoé Diatta euh, faire le tour du monde enfin le tour du Sénégal après l'avoir fait album euh, <laughs> mu def ko déplacé wu ak euh, groupe am et puis je rappelle encore que le janvier samedi prochain bëgguñu benn dëkk ëppale ñu parce que dégg naa waa Ziguinchor ñu ngi waajal seen i la ñuy ñëw Sénégal fanaan si ba sa pour la Dakar plutôt <laughs> fanaan si Kolda ñu ngi préparé seen ay kaar wa Fatick ñu ngi préparé seen ay kaar parce que dëkk bu ne dem na fa ba euh, dajale def benn album tuddee ko euh, terroir et on va célébrer ça incha allah euh, samedi 19 janvier. incha allah un très grand rendez-vous. on permettra à la diva aujourd'hui de nous présenter cet album. bu nga xamante ne ñun xëj na physique bi la ñuy am mais parfois live bi. mag ñëpp dañ koy bëgg. parfois l'artiste eh bien di nga ko bëgg a déglu. mais da ngay bëgg jàkkaarloog moom et je pense que grand théâtre comme ni ma ko waxee non seulement ce sera sa première sortie après sortie d'album bi. mais moom it am na ci xam naa yeneen yi nga xamante ne mi ngi ci biir yu muy préparé. te loolu nag lu ñu koy lu ñu mën a permettre tey. ñu mën a gis lépp lu mu togg. Mm-hmm. moom mooy ñu teel a ñëw. toujours pour arranger l' mhm. parce que ñoom dañuy def seen conducteur bëgg way mhm. mhm. déjà yëg heure bi mu bëgg pour ñun ñu mën a fekkee way yëpp c' est très important la seule façon d'aider l' ce n'est pas d'acheter des tickets mais c' est de venir à l'heure mu mën a li mu togg yëpp porte table parce que mu def yëpp dafay laaj temps changement plateau yi costume yi tout ça mu mën teel a yëg exactement teel ko def comme ni ñuy Europe ñoom bu ñu demee le talent et tout ça. ñu mën comme le 19 parce que Seydou Koubaga c'est tout la. Mm-hmm. Mm-hmm. te foofu noonu euh, X-Sides euh, vraiment daanelee laay euh, laay laay dooree. Mm-hmm. parce que vraiment loolu moom j'y tiens. maa ngi ñaan nit yi ñëw heure c'est très important. parce que déjà Grand Théâtre c'est 1800 places par là. su fekkee nit yi dañu ñëw di rang rek dina jël 2 heures 3 heures de temps. exactement bu fekkee nit yi 21 heures 9 heures lañ commencé ñëw ci guddi. c'est vrai bala ñuy après nga ñëw yéeg seen 23 ko defee dina am ñoo xam ne duñu mun a xaar wala du ñu mun a lii et puis dafay guddi mhm. terminer ay spectacle ay deux heures du matin loolu vraiment coono la quoi waaw coono la te du du li gën may ñaan ñaan ñaan ñaan dam leen ñaan ba à genoux <laughs> ngeen ñëw heure ngeen ñëw heure ngeen ñëw heure 19 heures 20 fekk ñu démarrer show 21 heures 21 heures man bu ma sañoon rek 9 ñu commencé 11 mhm. heures ci guddi ñu pare maanaam ku ne dem ñibbi tranquille bu la neexee nga dem di feneen. voilà am na question bu important bu mu doon posé tout à l'heure. c'était par rapport aux langues. ci langue yi voilà j'aimerais bien que nga ñëw si parce que c'est vrai que boo déggul benn langue ñun mm-hmm. parfois dañuy jéem a topp wayi en anglais mais bul comprendre. tout à fait <laughs> langue yi nag <laughs> comment ça s'est passé ba non dama. <laughs> je vous ai déjà expliqué ça. bàyyi ñu ko tey ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom non effectivement xam nga Euh, loolu euh, euh, Euh, lu metti woon la ci man. Mhm. dama delluwaat école jàngi daal ndeysaan <laughs> moo tax looy def rek am ci passion. Mhm. ak patience. soo amee passion am patience. Mhm. Euh, defe naa ne di nga ci mën a arrivé. parce que jàng dafa metti parce que je me rappelle ma nekkee école jàng leçon dafa metti woon. Euh, boo amul motivation rek doo jàng sa leçon da ngay découragé. donc man dama delluwaatoon di jàng leçon. Ah. parce que dañuy ñëw bind waax ma bind dal di lii ni bon ok ma jàng ko par cœur su ne ko waa mais wax ma ni ñu koy waxee amul problème. <laughs> phonétiquement ñu wax la ko ni ñu koy waxee. et du vraiment c' un travail d' équipe boo xamante ni nii. def nañ ko ak ak exigence parce que man loolu daf daf ma ñoroon quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bugguma euh, wax kàllaama jàmbur daal di koy détourner. voilà bu ma ko déformé te mu joxe beneen euh, interprétation. saaga mm-hmm. wala mu joxe leneen. voilà wala mu joxe leneen donc looloo tax euh, fale ko ñu mën ko parce que léeg-léeg di nga pare ba defee ne yaa ci ne. yi ñu déglu. ah, mm. ah oui moi venir toutes les communautés. de mm-hmm. chaque chanson ñu ñëw déglu. pour man avant mm-hmm. première la woon. Mm-hmm. pour toog observer leen xool. ñoom seen réaction lan lay te ñoom bu ma gisee seen réaction ça veut dire dinaa gis réaction peuple bi aussi. voilà et puis si la réaction était bonne ma ne alhamdulilah. c'est bien voilà et à chaque fois c'était bien. waxuma leen lu ñuy déglu dañu ñëw rek ma waxtaan ñoom ni ok ma tegal leen ngeen déglu. après dañuy c'est c'est c'était c'était difficile mais mm. au final am nañ ci am nañ ci mbégte quoi ma di ci mm-hmm. gërëm équipe bi nga xamante ni yëpp ñoo ma encadré ma liggéey ci euh, travaillé ci ak ñoom liggéey liggéey boobu nga xam ne moom lañ liggéey Kumba ma bëggoon rek dugg ci domaine euh, euh, social et éducatif parce que ñëpp xam nañ que tu es très engagé dans le social mm. et aussi très engagé pour tout ce qui est l'avenir des jeunes filles waaw moo ko yóbbante moo ko doon yóbbante question bi da ko répété depuis deux jours da ko répété kon bàyyiwu ñëw ñëwal garaaw ñëwal ñëwal sama doom daa répété question bi moo ko yóbbante toog fële jàkkaarloo mag mu ngi xool xool question bi ndeysaan question bi Oh. donc léegi xoolal ñaari affaire laa lay may question bi <laughs> euh, bisu Kumba Gawlo. plus ticket VIP le 19. waaw je t'offre ak benn le 19 incha allah. je t'offre tout ça oh. alors vas pour ta question. alors pour question bi euh, <laughs> dañuy gis nga xamante ne mooy social. Mhm. ak aussi si xale yi ak seen ñu bëgg nga ñëwaat si tuuti. ci euh, pour que askan wi gën a xam en fait. Mhm. waaw effectivement damay engagé wu li bëri ci euh, biir socialement ci biir. Euh, Euh, ci biir réew mi ak yeneen i réew ci lépp loo xamante ne nii mooy soxal àq ak yeleefu doomu aadama euh, ci mbir yi nga xamante ne nii mooy liggéeyu jigéen ñi seen indépendance seen autonomie seen koom-koom ñu am seen seen jàmm ak seen koom-koom njàngum xale yi rawatina xale yu jigéen ñi ndaw ñi nu nu leen mën a ñaaxee ba nu gën a am engagement citoyen ci suñu suñu ay réew fii ci Afrique ndax ndaw ñi ñooy ñi nga xamante nii comme ni ma koy faral di waxee loolu la gën a am. Mhm. voilà te loolu lépp nag boo ko gisee pour man dafa am euh, solo am sens. Mhm. parce que pour man musique yoon la woo xam ne ni dañ ciy jaar pour ñaax doomu aadama pour waxtaan ak doomu aadama. Mhm. te boo dee xool Afrique jigéen ñi dañu am jom. voilà mais dañu amul doole. voilà parce que boo dee génn nga gis euh, euh, dem ay réew yu mel ni ay Burkina Faso Niger Mali. wala même Sénégal des profondeurs. li ngay gis jigéen ju yenu sayu matt. voilà yore siwo ndox. téye doomam ci beneen loxo. wala inverse bi di mhm. dox ay kilomètres kilomètres mhm. kilomètres kilomètres voilà te du te du te du réchigné mhm. voilà donc euh, ci naaj wu tàng wi donc nga gis ay jigéen di dajaloo di def ay transformation produits locaux ci seen ay cotisation yu ñu def lu ñu ci am dundal seen njaboot la gis ay xale yoo xamante ni nii duñu jàng te dañu war a jàng parce que jigéen da nga war a jàng nga am xam-xam nga xam sa droit nga xam sa bopp nga xam fooy défendre sa sa bopp voilà nga gis xale yu jigéen yi léeg-léeg ñu teel leen a seen jàng tout simplement nax nañu leen ñu maye leen mm. wala ñu exciser leen yooyu yëpp nekk conséquence yoo xamante ni nii dafay euh, dafay euh, taxawal euh, <laughs> avancement jigéen avancement doomu aadama mm-hmm. te defe naa ni yooyu aussi pour ñu mën ko arrêter ñu mën ko changer ce changement comportemental et social mm-hmm. il faut ñuy dem ci vers les populations waxtaan ak ñoom mm. il faut ñuy waxtaan ak waajur yi ñu gën a xam valeur u jigéen mm. valeur xale bu jigéen bu jàng école ñu gën a xam valeur ki boo fan la la mën a jëmee. Mm-hmm. ndaw ñi aussi gën a xam ne Afrique vraiment est un terroir magnifique. Mm-hmm. que ñun euh, suñu Afrique dafa riche. <laughs> mais tu sais quand je la vois comme ça dafa mel ni je sens une femme est-ce que le terroir. bu leen ko marché Grand Yoff euh, maanaam mm-hmm. euh, déedéet livre d'accord mais est-ce que du nekk peut-être beneen entrée boo xam te ne dinañ découvrir Kumba mu nekk comme par exemple. comme une politicienne xaw ma ndax est-ce que comprendre ngeen fi muy. man c'est ce que je fais tous les jours voilà man c'est ce que je fais tous les jours. parce que voilà la politique sociale. parce que xam nga quand tu vas jusqu'à Xosanto ah. man dem naa ba Xosanto à 880 kilomètres de mhm. Dakar. Mm. et je l'ai fait par la route. Mm. voilà gis jigéen ñi pour waxtaan seen ak ak seen yelleef. Mm. dem ay zone yu mel ni Tambacounda wala feneen gis xale yi ñu yore ay butéelu 10 litres ndox di ko trimballer pour jàng si parce que école bi amul ndox. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne pour man dañu ci war a waxtaan war ci ñaax suñu gouvernant yi mm. war ci ñaax waajur yi war ci ñaax société bi pour ñu xam ne priorité yi réellement mm-hmm. euh, fan la priorité yi mooy changement yi am donc man te man loolu passion la ci man voilà passion la défaut la aussi parce que parfois Mokhtar mm-hmm. tape sur la table en disant mm-hmm. waa doo ñëw nga way na nga ngay def léegi ma ne ça me passionne voilà ça me passionne moi engagement là voilà et nous recevons beaucoup de messages yu jógee ci ci ay euh, kilifa euh, on vous attend le euh, Moussa Versailles c'est un jeune sénégalais bu nekk New York di habillé ay stars de Beyoncé à Viviane en passant par d'autres d'autres stars Moussa Versailles que nous saluons il me fait how are de Kumba Gawlo donc <laughs> kenn du ma jiitu grand théâtre oh, Moussa on t'attend ñu ngi lay nuyu <laughs> moom tam dafa am jom nekk jàmbaar on parle mhm. souvent de lui fekkoon nañ ko mm-hmm. New York il a deux stores là-bas ci New York et c'est pas évident ci sénégalais yu am jom la bokk c'est un sénégalais sa bu am jom donc Moussa Versailles euh, on t'attend le le 19 social <laughs> euh, y a Nadoura euh, Nadoura ah, c'est ma sœur kooku moom sama d'ailleurs album bi ñu ngi koy distribuer ci foofu ci Nadoura ah, Nadoura voilà parce que dañu créer carrément comme piraterie bi daf ñu xaw a rey dañu créer loolu moom innovation bu équipe marketing commercial bi mm. def la mm. créer mm. ay points de vente partout salon de coiffure institut de beauté les magasins institutions. fépp mhm. foo xam ne nit yi war nañ fa mun a daje. ñu def ko ay points de vente. Mhm. aussi dans la rue. Mhm. mais ce qui se passe c'est que dans la rue comme pirates yi. ñi ngi ci mbedd mi. dañuy ñëw c'est c'est très difficile. voilà loolu nag mooy li nga xamante ni ni Pape Cheikh dañ ci war a wax. parce que je trouve que c'est inadmissible. nga liggéey sa liggéey yàq say nelaw. Mm. jël sa alal def ci dara. Mm. jël sa doole def ko ci. Mm. benn nit jóge fële moom pendant que yow yaa ngi doon yàq say nelaw. doo lekk doo naan doo nelaw moom mu tëdd di nelaw. Mm-hmm. mu jël sa alal di ko jël di ko sàcc di la jaay loolu sàcc la et man j'ai l'habitude de dire que sa fait partie des biens mal acquis mmh. et puisque l'État en ce moment poursuit les gens qui sont <laughs> voilà voilà les biens mal euh, acquis ça ce sont des biens mal acquis parce que euh, piraterie boo ko jëlee nga jaay ko am ci alal alal ji nga ci am bien mal acquis la mmh. kon ñooñu dañ leen war a arrêté surtout que da ngay dugg sa oto ñu laaj ku mbagaw la bu bees baa ngi nii de <laughs> ah. voilà c'est jot na quand même pour ñu xool clip bi euh, bu leen ko pirater ah. je reste convaincu que ah, parce que vidéo la boo xamante ni exclusivité ngeen koy am léegi nii yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média euh, ci waxtu bi yéen ay nekk euh, ñi ko nar a njëkk njëkk a gis donc ñu ngi ci nuyu Al Ndiaye un très grand animateur. moom mu ngi fii on a reçu son message merci d'apprécier ce que fait Coumba Gawlo Seck Adja Dieng Astou Sow VIP yaayu Moustapha Bambi ak Baye Cheikh moom tamit jigéenu jàmbaar la nekk Espagne euh, moom itam bëgg na jigéenu jàmbaar moo tax elle est euh, de de Kumba euh, de Kumba Gawlo Ñaatamba qui fête son anniversaire aujourd'hui ah c'est ma sant moom CEO bi exclusivité bi dañ ko koy may tey puisque tey la anniversaire am moom ñaatam ñaatam ba ah. clip bi avant ma leen koy ñaatam ba sec <laughs> voilà ñaatam ba sec Diallo je vous donne numéro de téléphone bi nga xam ne ci ngeen mën a wootee euh, pour ngeen mën a am ay billets euh, ci spectacle Coumba Gawlo le 19 samedi prochain 77 666 67 36 77 666 67 voilà 77 36 bien noté voilà. Euh, pour euh, yéen ñi bëgg euh, def def voilà réservation. parce que ubbi nañu point de vente voilà CMFM mm. ci salon dafa def salon. a trois salons donc et 20 000. dafa loolu dafa ah, elle tout le monde. ça veut dire que bëgg na ñëpp parce que ñëpp gis ko. exactement ñëpp seetaan le spectacle mm. avec les différents tableaux. exactement yi nga xamante ni nii moom la ñuy présenter. parce que mm. ce que je chante li nga xam ne moom laay fay way. dañ ko nar a jël en ce moment traduire ko en image avec les communautés. Mm, ci costume yi ci tenue yi ci couleur yi déjà le régisseur ñëw na depuis euh, la semaine dernière ñu ngi commencé di liggéey. avec euh, pour la mise en scène pour les couleurs pour la déco. vraiment c'est le c'est le show mooy show bi nga xam ne war nañ ko seetaan quoi. exactement voilà donc avant clip bi. nañu xool annonce soirée bi le 19 janvier Grand Théâtre Kumba Gawlo en live ce sera le baptême de feu album terroir Mam Fama IGFM gis naa la ñëwati nga saa yoo gisee lu important rek da ngay ñëw et quand c'est important c'est yeewu leen bon euh, je vais <laughs> négocier comme ça nga am interview exclusive euh, ci euh, site internet bu euh, groupe Futur Média di igfm.sn mais on t'embrasse quand même euh, journaliste bu IGFM regardez ce que prépare Kumba Gawlo vidéo euh, samedi prochain au Grand Théâtre Saveur présente Kumba Gawlo en live en tournée sénégalaise après le succès de la sortie de son nouvel album Terroir. Le janvier, Kumba Gawlo arrive au stade Alioune Sitoé Diatta de Ziguinchor pour un grand concert. Entrée tribune francs, entrée pelouse francs, VIP prestige 5000.

5000 VIP Prestige 5000 Tiroir, une tournée du Sénégal des profondeurs avec Kumba Gawlo, la diva à la voix d'or. Donc au Grand euh, Théâtre. Je vous encore le numéro de téléphone déjà ubbi nañu euh, point de vente yi mën ngeen jënd billet bi euh, billet euh, fi nga xam ni mooy Femme FM nekk sacré bu leen neexee itam à partir de d'ici demain ou après bu ngeen demee buntu Grand Théâtre ubbi nañu fa point de vente li gën a yomb itam defe naa mooy woote réservé et puis on vous livre euh, euh, yi nga xam ne ni euh, bëgg ngeen ko pour mën a fekkee spectacle boobu la nga xam ni dëkk yëpp ñu ngi préparé seen ay car 77 666 67 36 pour def seen ay réservation l'album est extraordinaire bokk na ci message yi ñuy recevoir c'est de la part de la Mbo Mboña Konaté c'est notre grande sœur elle nous à Paris on t'embrasse très fort Mboña Konaté nous recevons encore d'autres messages bi c'est de la part de Bouba euh, qui dit j'adore Kumba ci prestance bi nga xamee ne am na ko. ah mon chéri là il m'a trahi. Ah, il t'a trahi kay. <laughs> Bouba Ndour takku dënd jolowul sax takku dënd ba léegi sama fitu <laughs> nag daa jongo ma nag. waaw quand même man tax nga sax sama fit rëccaat. waaw quand même waroon ko nag. <laughs> moom daal jomba jom bi daal dafa rafet moom. moom moom il m'a trahi. <laughs> donc Bouba Ndour aussi qui apprécie et puis Adja Touré doomu Madiodio ñu ngi kii euh, li ma neex ci Kumba Gawlo elle adore sa maman comme une religion. Euh, voilà donc c'est une phrase qui me touche quand même ñun xam nañ ci dara parce que bokk ndey voilà yéen bokk ndey voilà beaucoup de messages que nous recevons moo xam ci page Facebook bu yeewu leen moo xam ci suñu ay téléphone portable merci d'aimer cette dame parce que ñun ñëpp ñoo ko bëgg je pense que euh, jot na pour ñu tegal leen quand même euh, clip bi enfin on va décompter ensemble <laughs> comme tonton va faire comme les grands réalisateurs ñu décompter à partir de cinq si vous voulez voilà alors ñu commencer ko cinq wala un. ñu dem cinq wàcc wala un jëm voilà donc cinq wàcc c'est parti top départ pour découvrir vidéo bu bees euh, Coumba Gawlo CEO en exclusivité ci télévision Futur Média cinq quatre trois deux un c'est parti <laughs> bukki alma am na almet tey dëkk bi lakk je vais vous fatiguer ak way bi bu soobee yàlla yàlla ma yàlla may kii rek je vais vous fatiguer avec cette chanson euh, tu as à la fois envie de pleurer envie de chanter euh, daf lay jox euh, frisson da ngay kontaan kontaan boole mélancolie mm-hmm. ah, c'est une belle balade c'est une très belle balade bah oui bah oui que dire de plus ci ci way bi ah je sais pas <laughs> c'est vrai que way la boo xamante ni nii dafa am émotion man su ma koy way xam nga man Pape Cheikh su may woy mhm. eh, bu fekkente ni mën nga déceler personnalité nit da ngay gis lépp li nga xam ne mi ngi ci man dafay feeñ ci way bi samay souffrance samay tristesse samay mbégte eh, samay joie sama passion voilà loolu lépp da koy dëgg voilà da koy refléter ci way bi te defe naa ni morceau bi aussi su ma koy déglu defe naa ni loolu lépp aussi lañ ci lañ ciy ressentir mm, voilà donc euh, non seulement dinaa damay am da ngay sentir bonheur de chanter mais la tristesse la mélancolie parfois. la profondeur voilà donc et puis morceau la boo xam ne aussi dafa am profondeur ah. voilà parce que ci mélodiem ci wayinam ci histoire am. Mm-hmm. voilà et tout quoi donc vraiment c'est bokk na ci morceau yi ma gën a neex ci album bi mm-hmm. et chapeau à Galongal. c'est de c'est de vrais vrais artistes quoi ay jàmbaar dëgg lañu Galongal. voilà euh, donc <laughs> on, on, on, on finit. Euh, émission bi bëggoon nañu yendu ak euh, euh, Kumba Gawlo Eva Tra qui se prépare <laughs> est-ce que yéen a ngi fàttaliku Eva Tra clip bu Kumba Gawlo bi mu mm, nekk vous vous rappelez ça non bizarrement démb rek c'est la Eva Tra defee sœur bu pellu <laughs> ba ñun de taamu nañu jéegu fokk gorom teralal teralal sa goro te gis zëzël à l'époque T'es pas gentil. a son euh, naa mu wax ak Coumba Gawlo balaa ñuy tàggatoo ak Coumba Gawlo donc Coumba rendez-vous bi inchallah le 19 samedi prochain yaa ngi nekk à fond ci ay répétitions euh, ba noppi itam pareeguloo parce que après le 19 dañuy continuer euh, Euh, euh, suñu tournée nationale bi euh, après tournée nationale bi on va faire le tour de l'Afrique après tour Afrique 2019 bi itam yaa ngi préparé encore comme chaque année salle yi gën a yi nekk bitim réew diggante France États-Unis fu ne fa dem pour jaay encore mm. comme ni nga koy defee d'habitude li nga xam ne nii ñoo ko moom muy culture sénégalaise Kumba mm. tout à fait Pape vraiment maa gërëm ñëpp di féliciter encore Galongal pour mm. travail ce travail magnifique remercier yi liggéey ak man yëpp voilà <laughs> voilà di li di remercier bu euh, euh, bokk na ci sama styliste yi nga xam ne souvent ñoom lay liggéeyal di remercier aussi fële ñu jógee Ziguinchor Abdou Karim si mm. nga xam ne dafa taxaw aussi ak équipe bi mm-hmm. di remercier tout les staff vraiment mm-hmm. Pape Cheikh defe naa ni man liggéey bi may liggéey mm-hmm. sama équipe ñoom la honneur bi parce que équipe la boo xam ne duñu ay duñu ay tapette quoi duñu ay yambar quoi gars yi dañu ñemee dañu am dañu am jom dañu ñeme liggéey seen xol dafa dee ci liggéey parce que dañuy liggéey ba 5 heures du matin ñu ne ben 7 heures il faut être là 7 mm. heures ñu ñëwaat mm-hmm. ah, ñoom ñëpp sans exception vraiment defe naa ni honneur bi ñoom la mm-hmm. je les remercie en passant par Mokhtar Marietou Karim Tamba euh, tout le staff Laye Diagne le réalisateur les musiciens l'équipe de communication Koulim Djoum je remercie vraiment l'équipe j'ai une équipe formidable ah, di wax nag grand théâtre le 19 ne nit ñi teel a ñëw parce que 21 mm-hmm. heures man laa bëgg a démarrer euh, show bi mm-hmm. te li nga xam ni aussi moo ci am solo mooy mm-hmm. on va s'habiller terroir maanaam traditionnel ñi ñëw ñëpp dañ leen wax ni nañu solu euh, traditionnel te ñu solu ku ne fa nga bokk séeréer yi nañu solu séeréer parce que compétition la aussi compétition c'est une vraie compétition na ngeen solu tukuleur yéen alpulaar yi te fexe leen nag ba bu leen séeréer yi mën parce que man alpulaar laa te bëgguma ñu ma hmm? voilà euh, joolaa yi da ngeen solu joolaa euh, ñi dëkk Kédougou waa Tamba waa Kolda waa Bundu vraiment loolu mooy Sénégal parce que c'est pour représenter le Sénégal pour créer la paix la cohésion sociale le rassemblement au Sénégal le retour à la source l'ouverture et l'enracinement comme ni ko Senghor doon waxee te defe naa ni Pape Cheikh Sénégal fi mu toll nii ak clivage politique yi ak yi am dañu soxla nit ñi dellu si waat ko sax ci album voilà dañu xam suñu Sénégal tout à fait prochainement dañu soxla nit ñi dellu si waat bëggante waat mhm. euh, joxante waat loxo te loolu mooy li nga xamante ni nii moom laa bëgg a wone fële ci Grand Théâtre incha allah le 19 na ñëpp teel ñëw mhm. bu ñu ñëwee ku nekk solo ba ñu identifier la rek ci fi nga bokk mhm. xam ne lépp rek Sénégal la incha allah voilà man de maa ngi waaj tenue Koli euh, euh, Tengela ndax mooy sama maam <laughs> moom laa nar a sol le samedi prochain habillez-vous Euh, asgor nag du bàyyi josam ku ne fi nga bokk boo ko soloo defe naa dina baax ki nar a am problème kay mooy vietnamien bi toog xanaa nga sol seen tengaade yooyu rek xaw a a sàcc tuuti non mu sol bu vietnam rek mu sol bu vietnam bu vietnam comme ça <laughs> bokk ah béyu fan du clan des yàq jëf li bu laa ah, <laughs> di gëlaat ak waa yàq yëpp la ñu de rue Ravenel Guèye ñoo ko ñoo ko ci foofu waaw ñu def waa affaire Lébu def tegale ci xam na boppam def ko nii waaw meray <laughs> ko voilà donc rendez-vous nga baal ma le le 19 merci à tous bëggoon nañoo jàllale anniversaire yi mais malheureusement on n'a pas temps euh, mais c'est toujours un plaisir def émission Coumba Gawlo da ngay def moom émission lundi euh, mardi euh, nga defaat ak moom mel ni musoo woon def ak moom émission c'est-à-dire passion bi nga xamee ne moom daf transmettre. dafay wàll et puis Pape Cheikh ma euh, coupé la pour remercier vraiment la TFM parce que c'est TFM qui nous accompagne. ci événement le 10 19 bi. Mm-hmm. di remercier surtout Youssou sama grand frère. Mm-hmm. parce que daf ci impliqué wu joxe des instructions. Mm-hmm. ni événement bi suñu événement la. suñu yëf la sa yëf la. kon TFM sa télé la. ñëpp ñoo ciy jàpp équipe bi mobilisé wu. et depuis lors vraiment tout le monde s'est mobilisé. autour de ce projet. kon Youssou merci voilà, donc en direct voilà, sur voilà. TFM et en mm-hmm. simultané sur Fem FM le 19 euh, ouais. Euh, inchallah mm-hmm. merci encore Coumba Gawlo c'est moi qui vous remercie jërëjëf jërëjëf Fatma Pape Cheikh et merci pour ta passion <laughs> je t'adore ah, et merci à cette belle équipe que tu as X-Siders jërëjëf jërëjëf seen taxawaay gis nañ seen taxawaay merci tu une belle équipe c'est quand je pense à ces gens qui sont avec moi tous les matins je damay forcer ñëw quoi surtout période yi j'ai du tout envie de bosser. Et pourquoi mais grâce à vous. Euh, c'est des moments de doute. Euh... Ça arrive à tout le monde. <laughs> hein <laughs>